del déglu del xool dal leen ak jàmm yéen ñi nga xam ni rek yéenay euh, suivre Feeling Dakar euh, TV gannaaw euh, mariage bi nga xamee ni rek daal day dox ci diggante No Face ak beneen xale bu jigéen gannaaw rek bi nga xamee ni moom No Face daal di nay rek tas ak ki nga xam ni moo di Mia Guissé keneen koo xam ni itam daal di nay takk jabar bokk ci itam ci showbiz bi di Jeeba Jeeba nag jamono ji ñu ngi xamal ni moom daal takk na xale bu taaru xale bu rafet lool ma ngay wuyoo ca Mati Jabaate ma nga nekk. nag fële ca euh, Boston ñoom ñaar ñee daal jot nañoo rek daal di euh, fësal seenub tey sëy euh, ni ki tey jii tombe ak aljuma ji daal la ñu fas seenub sëy fële ca Boston mu nekk mariage boo xam ni ñëpp ñu ngi ko doon xaar bi nga xamee ni rek moom Jeeba dañ nañ ko taqalay xale yu jigéen yu bëri Jeeba daal daal nay rek fas soxna ab xale bu jigéen boo xam ni rek ma ngay wuyoo ci turu Mati Jabaate nekk fële ca Boston mbooleem ku yeewoo ci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 Dakar, notre plateforme d'information.